Ndayane euh, Vision ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen dalal jàmm ci seen chaîne de télévision bile euh, ni ki tey ñu amewaat euh, mbégte fas yéene kon ànd ak yéen ci seen émission politique bi ñu tuddee jotaayu politique ñu am itam mbégte tey dalal ki nga xamante ne moom mooy Birane Diop di responsable yi ndaw yu fare kon ci taxawu Sénégal ak Khalifa Babacar Sall Birane asalaamaaleykum. waaleykum salaam Mamadou Fall maa ngi lay nuyu di la ziare. Euh, nga peut-être balaa ñuy commencer waxtaan bi ma ma ma nuyu sa naataango Moustapha Seck bi nga xam ne que ni sama frère la euh, sama mbokk la di ko taatagal di ko taatagal di ko dalal jàmm ci fii suñu suñu kër. di ko wax ne que këram la ba pare tamit di ko encourager di ko ñaanal yàlla ci projet bi bu mu sóob bu mu sumb yàlla na ko ci yàlla defal lu mucc ayib bon mu ci seen rëb yàlla na ko ci yàlla may soo déggee euh, turu. média bi Ndayane Vision lépp di nga xam ne que day dellu Daaru Musi dellu Touba dellu Sarsara e, di Ndayane Awa Balla sëriñam di sëriñ Fàllu ak sëriñ Kos Aslo di profiter ci également di nuyu suñu mbokk yi nekk Daaru Musi ak Sarsara ak képp ku ñuy suivre ci internet yi merci beaucoup. mu ñu fas yéene kon sóobu ci li nga xamante ne moom moo ci waxtaan wi doore ak li nga xamante moom mooy actualité bi. Euh, le président Macky Sall mu ngi doog a def at ci li nga xamante ne moom mooy ci biir deuxième mandat euh, en tant que jeune xalifiste euh, tey boo doon def ba xayma ci toogin bi nga xamante ne tooge na ko ci deuxième mandat bi lan lay doon. waaw tooginu Macky Sall def bilan bi càmbar ko yaakaar naa war na yomb parce que déjà fi ñuy njëkk a commencé mooy ci ci palin bi niñ ko falee ñun man personnellement j'étais impliqué dans. la campagne présidentielle dellu suñu dëkk dem euh, wote jëf yàlla may ñu te ndap également parce que ñun ñu ngi bokk ci ci commune bu Darou Moussi fa laa doon milité fa laa defee campagne wax dëgg yàlla yàlla may nañ ci ndam foofu ñun ñoo fa gagné donc foofu moom amuñu leen li nga xam ne que ni luñ ci regretté le mais suñu xoolee au niveau national déjà score bu mu gañee mu jaaxal ñëpp parce que suñu defee compilation bi ak nit ñi ni ñu suuree woon Macky Sall ñoom ñu mën a génn fabriquer seen résultat ñu gagné leen à hauteur de 58 pour cent mu doon lu jaaxal nit ñi mais loolu euh, peut-être ñeneen ñi nga xam ne nekkuñu ci politique lay jaaxal mais ñun ñu ci yëngu ci politique xam na ne que c'était une victoire technique une victoire fabriquée waaye nag comme li ñuy wax dañoo nekk ci réew di nekk di wuyoo ay républicain comme charte réew mi dogal nañ ko waatal ko mu nekk mu nekk président ñu ko koy nangul mais leneen li également li nga xam ne rëq-rëq la bi mu nekkee xam nga bu fekkente ne da nga dañ la fàll ci mu réew conseil constitutionnel dëggal falin bi ba pare mu prêter serment conseil constitutionnel wala constitution ci boppam ne la soo soo prêter serment rek da nga war a def sa déclaration de patrimoine ba léegi defu ko loolu yaakaar naa lu gàkkal démocratie la lu gàkkal république la ak lu gàkkal mandat am la leneen lu weesu mooy mandat bi eh, premier mandat donte loolu weesu na mais deuxième mandat bu mu commencé ñu yaakaar ne parce que am na sénégalais malgré moom mbuxam ak ak njaaxum yi mu doon def ci réew am na sénégalais yu amoon peut-être yaakaar ci moom fal ko ñu leen nangul également seen yaakaar ci moom nangul leen seen sit seen statut seen vote mais bu weesoo ñooñu ko fal dafa mujj sax far euh, décevoir maanaam euh, njuuy ñëpp ñi ko faloon wala ñi ak ñi ko falutoon parce que deuxième mandat bi dafa commencé juste rek mu commencé yokk yokk ciment bi yokk euh, ndox bi yokk yenn denrées de première nécessité maanaam dëwlin suukar ceeb ak yooyu loolu yaakaar naa ci li mën a gàkkal bi lam leneen li mooy ba ay scandale yu yu yu jug yu nga xam ne que nii yu mag a mag la ay milliards lañ ci tudd pétrole bi lañ ci lañ ci lu mel ni rakkam wala ak njabootu mu dugal leen ci gestion pétrole bi ba luñ ci mën a lim ay 6000 milliards yoo xam ne loo luubal nañ ko ci pétrole bi daal ba léegi dara leeragul yaakaar naa loolu également ci lu lu lu gàkk la ci ci ci ci mandat bi ci un an yi bu ñu ko manee càmbar leneen li mooy ndox mi également ndox mi comme dañ ko dénk dañ ko dénk euh, daanaka rakkam euh, wala wala jar ba ngeen baal ma goroom euh, te ni ñu defee attribution marché bi également doon loo xam ne lu lëndëm la lu doy waar la donc moom début mandat bi déjà dalul xel koo xam ne ni un an ngay fi def 365 jours nga fi defagun te cent 365 jours yi saa yoon xëyee ci ci chaque jour dinañ ci dégg scandale mboxum njaaxum ak luubal loolu yaakaar naa ne bu fekkante ne noonu lañ nar a continuer moom ci lu dool ne juróomi at naan kaa yaakaar naa Sénégal moom dina bokk ci comme dañ doon wax ci vingt cinq pays yu gën a ndóol la bokk dina mujj sax doon far pays bi gën a ndóol ci àdduna bi. est-ce que di liggéey di def kéemtalaay kattanam su gis na Euh, ci biir euh, deuxième mandat bi la lancé travaux BRT yi en plus aussi mu ñëwaat euh, barki dem mu Ndiaye mu teg xel bu njëkk stade bu Sénégal yooyu boo ko gisee ay chantier yu rëy de. daa ngi naan berte mais balaa BRT am na lu beneen projet bi mu fi tegoon muy e TER train express régional bi genre genre populisme la ko defoon avant élection bi du ji di agsi sax nee na inauguré na ko ba léegi ni tey soo xoolee TER bi maanaam doxul. ba pare kenn xamul ndax mi ngi continué wala continué wul ba sax ñi nga xam ne que ni dañ koy tooñ ne xëy na poussière bi fi amoon démb sax dañ doon dañ doon nettoyé TER bi moo tax poussière bi yëpp parce que soo xoolee euh, train yi euh, maanaam matériel bi ak ak train bi ci wàllu boppam soo xoolee da nga naan lii ndax maanaam ay ay ay fukki at ci ginnaaw la fi nekkoon wala parce que kenn xamul lu muy nurul TER bi non seulement doxul ba pare mu nax sénégal yi inauguré na ko te dara te dara pare wu ci leneen li si gën a dooy waar mooy terre bi liñ ko inauguré niñ euh, ko niñ ko jëndee toll ci mille deux cent milliards. soo xoolee dama ko doon def keroog euh, taxaw seetlu may comparer TER bi parce que chinois yi ñoom euh, defar nañ fi hôpital yu loolu juróomi fukki fukki nañ koy wax fan fan dix jours ma méngale rek li TER bi côté ak hôpital bi bi chinois defar ci fukki fan ni mu tollool chinois yi ñu ngi defar hôpital boo xam ne fukki fan la ci ñaar fukki milliards ak juróom benn juróom juróom wala jàpp juróom benn ñun ñu ngi def tailleur ci mille deux cent milliards soo méngalee ma méngalee que Sénégal mi ngi mi ngi compté euh, quarante cinq département maanaam ñeen fukki département ak juróom soo xoolee daanaka ñun lu ñu fay ci TR bi tabax na ci ñeent fukki hôpital ak juróom te mu des xam nga loolu scandale mënu ko romb te dëkk boo xam ne nii boo bëggee faju doo faju dëkk boo xam ne nii soo bëggee lekk doo lekk soo bëggee naan doo naan nga jël mën a nga mën a jël xaalis bu toll noonu ci xaalis Sénégal ci aw aw ab lépp Sénégal yi war ko fay nga dugal ko ci non seulement cher na ëpp na ba pare farul doxul donc loolu mënul nekk projet bu ñu bu ñu mën a rafetlu beneen bi mooy BRT xam nga yaa ngi e doxul nga ne da ngay créé waat beneen BRT boo xam ne que ni financement bi kenn xamul nu mu tëddee yaa ngi génn ay nit ci seen dëkkuwaay donc mu nekk mbuxum ak njaaxam yu doyo doyo doyo doyo waar ñu nawaat déetuwaay nga ne nag da ngay da ngay da ngay eh, benn stade xam nga ñun man man dama nekk koo xam ne damay suivre sport dama bëgg football dama koy dama koy damay rafetlu que Sénégal wax dëgg yàlla toll na foo xam ne war na am eh, stade weesu na sax ay ñuy am benn stade war nañu am ay stade yu bëri bëri ci chaque département wala chaque région war nañu fa am au moins benn stade mais soo xoolee xaalis bi ñu jëlee def ko stade bi sa Côte d'Ivoire soo demee euh, stade bi ñu defar daanaka ñoo nuroo ci projet bi ñoo nuroo ci tolluwaay mais xaalis bi ñu ci jël dugal ko ci stade stade Sénégal boo ko méngalee daanaka dab dab na ñaar yoon nga xam ne loolu waa waa Ivoiriens yi def ci stade ñoom déjà pare na loolu nag mooy xam nga ñoom loolu dañu ko tàmmal c'est-à-dire dañuy sumb benn projet bu mag ba yaakaar ne mën nañ nax Sénégal ñu dugal ci ay surfacturation surfacturation yi nag ci ñoom lay delluwaat sax daanaka xaalis Sénégal lay jël la ñuy jël ko donc loolu bilan bu bu bu doy waar te ñoom xam nga ñu bilan sax en mi mandat sax mi mandat lañ nekk ñun ñu dugal daanaka lu ëpp ay ay téeméeri téeméeri téeméeri milliards loo xam ne seen bopp lay lay dugg ci moment boo xam ne Sénégal yi ñu ngi continuer di xiif ñu ngi continuer di mar ñu ngi continuer di am ay jafe-jafe faju ak jafe-jafe dem dem l'école maa ngi dem Natal bi également ñu ngi def beneen stade parce que nañ ko ci boole stade bi ñu inauguré stade de lutte maanaam stade bi ñuy bëree ñu ngi ko def ci Pikine ci technopole fi nga xam ne que nii daanaka kenn waru fa eh, tabax dara zone non aedificandi la war a doon parce que benn euh, ki benn environnement moo ko wër fi nga xam ne que ni Sénégal fi lay respirer ñu naan poumon vert sana Dakar daanaka loolu rek la am ci poumon poumon vert ñu jël fa eh, agressé environnement ak jamono ji ñu nong ci changement climatique tey ñu ngi nekk ci mois de février mu tàng nii ku nekk war a xeex ndax ñu mën a préserver environnement moom mu agressé environnement loolu doyul 32 milliards lañ ci def mais soo demee ci à côté soo defee ñaari pas trois mètres juste di nga fa fekk benn école boo xam ne ni amul table amul classe euh, amuñu proviseur bi sax amul amul amul bureau donc dara matu ci. nga mën a jël lu toll noonu ci xaalis dugal ci stade ñu fay foo ak di fa xeex moment bi nga xam ne que xale yi ñi nga bëgg a jàng mënuñu mënuñu mënuñ mënuñu jàng bilan bi également mooy jàngalekat yi wax dëgg yàlla ñu ngi toll ci moment bi nga xam ne que ñëpp a ngi di di di di grève parce que dañoo am ab bor bu ñu leen ameel ba léegi lu toll ci cent milliards yoo xam ne mënuñu ko fay ba pare état du leen wax lu leer président du leen wax lu leer lu di leen di leen di leen ah. bi wax dëgg yàlla la d'accord bilan version euh, sobre et vertueuse euh, mu indi OFNAC euh, bu ñuy fàttali ko sax ay kaddu yi nga xamante ne waxoon na ko newoon na ñi muy àndal ci biir gouvernement bi OFNAC pour ñoom la tey ginnaaw bi nga xamante ne rapport Cour des comptes génn na ñu daal di ci gis xëj na lenn li nga xamante ne ay Euh, liste de recommandation la ñenn ñi euh, tuddee euh, tey boo gisee rapport boobu ak ñi nga xamante ñoom lañ ci tudd est ce que yow sa xel dal na ci tey lu ñu yore li nga xamante moom mooy alal réew mi sama xel dal na loolu mënu ma ko mënu ma wax sama xel dal na te loolu yaakaar naa Sénégal yëpp ñoo koy partagé ak man amul benn xelu sénégalais bu dal ci ni ñuy ni ñuy yoree benn koppoori Sénégal yi ñaar ñi saytu koppoori Sénégal yi ni ñu leen di traité ba ci rapport yi ak doyadil gi leen di def bu rombee ak cour des comptes mën nañ ci dem ba ci IGE euh, wala inspection général des finances inspecteur général des finances xam nga jamono fi baaraama tuuma ki ñu naan mbay mam mbay ñaa ci lu tollook ñaar fukki milliards ak juróom juróom-ñeent yu ñu luubal xam nga kooku kuréel bu bokk ci ñoom la benn ministère des finances moo am benn kuréel bu saytu nu ñu yore xaalis bi mu wëlbatiku jam baaraamu tuuma Mame Mbaye président Macky Sall amul lan lu muy def lu dul protéger Mame Mbaye xam nga loolu déjà doyadal na inspection boobu beneen bi mooy inspec euh, euh, IG inspection générale d'État mu nekk kuréel boo xam ne wax dëgg yàlla ñëpp mën mën nañu am ci ñoom xel mu dal parce que ña fay ña fay ña fay liggéeyee ku ne xam ne que ne dañoo yàgg liggéey ci administration jaar ci ay jaar-jaar ci ay kuréel yu mag a mag ba def concours bi nga xam ne seen un concours très sélectif ñu jël fa ñoo xam ne dañuy prêter serment donc ku ñu bu ñu defee rapport war nañ ko mën a càmbar ba xool li ci luub ñu koy ñu koy dindi mais mag Sall dina def bi mu fi ñëwee ba léegi dina def ba na saxal nag corps de contrôle yooyu ba wala corps de contrôle yooyu ba liñ bëgg saytu ci nguuram duñ ko mën a duñ ko mën a duñ ko mën a def mais li ci gën a doy waar mooy cour des comptes cour de comptes déjà fi ñu mën a déjà euh, amee teeyum xel mooy xam nga rapport yu ñu génne yàggul dara mi ngi nekk rapport 2015 2016 2000 2000 2017 lu tolloog juróomi at nga koy toog mën a produire rapport te rapport boo xam ne chaque année dafa chaque at dafa wala année bu nekk dafa war a génn loolu déjà maanaam jaarul yoon te xam nga li tax jaarul yoon mooy. cour des comptes dafay génn fo nekk di joytu ñu mën leen jox ay moyens jox leen jox autonomie ak indépendance mais malgré ça président du ko du ko def parce que président amul intérêt jox leen indépendance wala jox leen moyens yu ñu mën a demee saytu kuréel yi ak ak nit yi ko jiite. ba ci ñi nga xam ne que ni sax ay ministères la ñoo xam moo leen tabbu lu ci mel ni Moustapha Diop damay faral di ko di ko citer nommément tous les jours parce que dafa nekk koo xam ne ni il a fait montre véritablement d'un irrespect et d'une indiscipline notoire. à l'endroit de ces yi nga xam ne que ni ay ay magistrats lañ ba pare nekk ñu ñu doylu ñu mën a sa càmbar kopparu Sénégal mu ñëw ñu dem di kopp euh, di ko saytu mu dàq leen saaga leen toroxal leen loolu te Macky Sall ba léegi nii jugul wax ci wala mu alerté wala mu artu Euh, Moustapha Moustapha Diop Cheikh Omar Anne également bi ko fi euh, rapport nag euh, wala bi fi OFNAC demee di ko saytu wax dëgg yàlla lu ne def na ko ci pression ci saaga ci wut ndimbal ba ba finalement sax ki nga xam ne ki ni moom lañ jiite woon moom moo jiite woon kuréel gi di Nafi Ngom Keita mujj na sax moom mi produit rapport bi ak njuñ njaay ji ci am yëpp malgré garaawaay bi ci am yëpp moom lañ mujj sax far. daanaka sanctionné maanaam dàq ko mel ni ku ñu kuy kuy kuy dàq xaaj donc euh, Macky Sall mun na am na kuréel yi mu fi fekk. do jox mayu leen doole mais kuréel gi mu ràpp bi mu bi mu créé boppam également daf ko néewal doole te moom waxoon na ko te ñëpp di ko dégg kën af nag wax dëgg yàlla moom moom pour pour waa pour waa këram la malheureusement ba ñu kii biñ bi mu ko euh, mettre en place ba léegi amul benn doomam buñ ci buñ ci buñ ci jàpp amul benn mbokkam buñ ci jàpp amul benn àndandoom bi ci jàpp te chaque jour ñuy gis seeni seeni seen i giraawaale ak seen i seen i seen mbuxum ak seeni njuuj njuuj njuuj njaaj te wax dëgg yàlla loolu suñ ko méngalee daanaka am na ku am ndey ku ma amul ndey parce que au même moment mu dekkalaat cré yi topp ci benn nit fexe ba tëj ko kaso euh, bi mu génnee kaso mu mu mu taxal ko réew mi cest mu exilé ko exilé ko IG également defoon na jóoni woon na ko fi ci Khalifa ba Sall xam naa dinañ ci ñëwaat mu mu def rapport boo xam ne ni néewuñu sax nañ topp Khalifa Ababacar Sall dañ ne nañ xoolaat doxalinu caisse d'avance parce que doxalin bi xëy na jamono wees na ko mais moom benn objectif la amoon du sax xaalis bi ñuy càmbar mooy que c'était un objectif politique mooy que comme dëgmal nañ ay ay élection te ala kulli aale moom il faut que mu falu mooy dina fexeel dina fexeel Khalifa Ababacar Sall ba tuumaal ko ba ba nëbb ko nëbb ko jant bi loolu loolu loolu mooy bilan euh, Cour des comptes wala wala wala kuréel yi nga xam ne dañuy saytu euh, kopparu Sénégal bilan bi mooy su fekkee adversaire am la moom dina ko topp dina ko bund xatal dina ko jàpp dina ko nëbbu kasa bi ci tuuma mais bu dee aw ñooñam la moom dina fi créer ay subterfuge ak ay artifice naan naan nañu tagal ay ay commission di guddal jël te yaakaar naa ne loolu moom euh, du Sénégal yi loolu la yaakaar ci moom du loolu la ñu xaar ci moom malheureusement noonu la demee. ah national bi nga euh, na ko nag xëy na ci. Euh, atom bu njëkk bi ci deuxième mandat bi loolu moom xanaa da nga koy rafetlu biral <laughs> waaw dialogue dialogue moom ala kuli ali dialogue lu ñëpp di rafetlu waaw mm, parce que euh, liñ naan waxtaan la waxtaan nag moom li naan euh, ala kuli ali dina jur dara liñ naan nit bu la woowee dina la jox wala mu wax la mais dialogue bi contexte bi mu ko defee moom mooy moom mooy yéem nit ñi wala moo leen moo leen moo tey seen xel parce que buñ jugee ci ay élection wala ñu dënga dëngmal élection Euh, kuréel yépp kilifa diine yi ñu seq wàllu politique société civile ak société ak euh, parti indépendant yi ñëpp ne war nañ toog jaloge xool fichier électoral bi xool euh, ressource Sénégal yi xool doxalinu Sénégal ñu toog waxtaan ci moom mu mu fël loxaam fémati leen munul musul créer benn con cadre boo xam ne que nit ñi dinañ toog waxtaan ci li nga xam ne lendemain yoo xam ne yu incertain lañ jëmoon mais nag bi mu créer victoire technique am boobu ba pare xam na ne amul légitimité ba pare euh, xam na ne que moom Sénégal yëpp farluñ ko mu ne nag naa créer benn contexte boo xam ne nii dinaa wër dinaa woo ñëpp ñu ñu ñu wër moom ñu bu ko defee moom mu am mandat bu bu bu sedd bu am bu am jàmm malheureusement. mënoon nañ ko rafetlu fekkonte ne amul ci benn euh, xaar ma yàlla wala amul leen lu mu ci xam lu mu ciy calculer mais contexte bi mu ko créé déjà dina tey xel meneen meneen leneen li mooy ginnaaw moom fexe na ba ba ba ba li may wooyee victoire technique ala kulli aali nee na gagné na mais moom na doxal Sénégalais yi moom nee na moom lañ moom lañ wóolu. su fekkente ne euh, wax nañ ne dafa am blocage ndax euh, euh, démb rek amoon nañ tam beneen xiroog naa yow ñu ci diggante acteurs yi ko sëb ndax ñi nga xam ñoo fare aussi ci opposition bi ñoom lu ñuy laaj yéen a gën a xam ne ñu fare ci mouvance présidentielle bi ñu ko nangu maanaam ki nga xam ne moo fi président de la république mu bañ ci doon président de parti article 80 bi mbirum arrêté Ousmane Ngom bi. ak tamit euh, liberté de candidature yi yooyu ñooy blocage bii ndax jàpp nga ne yow boo koy dégg aussi dialogue bii dina am li ci tukkee ci njëriñ. waaw balaa may agsi ci ci ci li ñu mën a xaar ci bi dama naan rek dialogue bi euh, ñàkk a ñàkk am njëriñam mooy déjà am na dialogue bu mel noonu wala bu ëpp dayoo sax bu ñu naan assise national boo xam ne que nii wax dëgg yàlla Sénégal gi yëpp a ci commencé woon toog waxtaan ci secteur bu nekk ñu xool la ci gën ñu teg. Macky Sall bi mu nekkee candidat bi mu yaakaaree ne bu bu bu bu signé charte assise nationale yi dina dina am ndam bi mu ñëwee daf ko daf te amu ci benn réserve te loolu ñuy séqoon assise nationale wax nañ ko te loolu lu ci ëpp li ñuy waxtaanee yëpp mu ngi ci woon xam nga kooku dèjà moom amu objectif pour waxtaan beneen bi mooy defoon na fi eh, benn commission de réforme des institutions boo xam ne ni mu dénkoon ko. Euh, kàngam googu di Amadou Mahtar boo bi ñu paree xam lan la lan la ca wax man maa ci seet li nga xam ne bëgg naa ko arrangé na ma ma appelé ko li ma arrangé ma sànni ko def ci poubelle bi kooku tey mooy wëlbati ko waat ne nit ñi nañ nañ nañ nañ dialogué bañ yaakaar lañ mën a am ci moom parce que karal moom kàddoom à chaque chaque fois mënu ko respecté kooku tey mënuñu jox benn espoir ci dialogue bi tey li ñu ci li li li ñu ci xaraat rek mooy li amoon démb ak barki dem mooy nit ñi dina leen sonal yàq xaalisu Sénégal parce que ñu dem bi am na loo xam ne diñ leen ko diñ leen ko joxaale yàq xaalis Sénégal yàq ko temps Sénégal joxaat nit ñi yaakaar ba pare mu ñëw yàq yaakaar jooju mooy dialogue bi dina pare mu xool li ko ci arrangé mu def ko li ko ci arrangé wul mu sànni problème te en général li koy arrangé mooy doxalinu politique am li ko arrangé wul mooy li nga xam ne mooy doxal euh, kanam Sénégal te malheureusement li doxal kanam Sénégal lay sànni ba pare jël li nga xam ne ni moom dina ko arrangé ci wàllum politique donc bokk na ci euh, maanaam képp ku nekk président mu waratoo doon chef de parti loolu mi ngi woon ci assises nationales yi bi mu ñëwee dana dane ko appliqué beneen bi mooy ay bulletin bulletin unique bi ñu war a bi ñu war a euh, dugal pour ci pour élection yi bi mu jubee élection yi dane ko duma ma ko du ma ko bi nga xam ni nit ñi d'accord ci woon mu ne moom dina ap dina ko appliqué parce que arrangé na ko kooku tey bu ñu wëg a wëlbatikoo ne ñu naan dina dina dina dialogue bi mën nañ ci yaakaar man amu ci benn benn yaakaar man dama yaakaar ne rek benn benn benn euh, kuréel la buy bu nga xam ne que ni xëy na namante nañ di waxtaan daje fa di waxtaan loolu ñoom la ñoom la engagé mais nag am na benn fànn boo xam ne xëy na peut-être euh, dina am njëriñ mooy dialogue dialogue politique bi ba Khalifa Sall am na ay ndaw yum ci yu mu ci yu mu ci yu mu ci yabal mais ñu ngi xaar conclusion yi euh, ça pas dire que ñoom dem nañ que ñun dañuy souscrire entièrement ci dialogue bi parce que ñun tamit wax dëgg yàlla am nañ benn indépendance boo xam ne que ni suñu gisee même su ñi faral ñu ngi ciy dugg te fekk bu dëkkawu dëppawoo nag suñu gis gi ñun dara mënuñ ci mënuñ ci dugal mais amu ci benn benn yaakaar leneen leneen li nag mooy pour ma terminer foofu mooy ñu ngi naan dañuy dañuy amnistier Khalifa Sall wala dañuy amnistier. yéen yéen yéen a sakku loolu wala. déjà moom demandé wul amnistie. demandé wul grâce li muy demandé en tout cas man li ma jàpp ne personnellement man li ma jàpp ne moom la yelloo mooy ñu réhabilité ko réhabilitation mooy dañ ko tuumaloon fomante benn rapport yóbbu ab procureur mu mu mu mu mu tuumaal ko tuumaal bu doy waar boo xam ne nag wax dëgg yàlla kuuru CEDEA kuuru CEDEAO woo nee nañ kii moom allah koli ali dañ ko tooñ dañ ko tuumaal ba pare respecté wuñ euh, procès ni mu war a demee mooy procès ju procès juste ak équitable parce que amuloon avocat amuñu ko assisté ensuite accusation yi dafa dafa dafa dafa jeng benn côté loolu ñun amuñu ci benn benn problème Sénégal yëpp xam nañ ne que accusation la woon te naax na saay moom nag moo amoon problème problème bi mu amoon mooy comme na ko ba Sénégal yëpp wala askan yëpp xam ne ne ko tuumaal nañ ko nan lay def ba génn ci moo tax mu créé grâce boobu te ñu ñu ñu ñu ñu ñu bëgg a rey ak encore amnistie sa Khalifa Ababacar Sall ak ñi mu àndal amul kenn ku ci xaar amnistie amul kenn ku ñaanoon également grace li ñuy demande comme ni ma ko waxee sànq mooy réhabilitation nuñ koy réhabilité nag nuñ koy réhabilité nag ñoom ñoo ko xam dañ ko tuumaloon nañ wëlbatiku ba pare jéggalu ko publiquement ensuite ndomba tànk yuñ ko yi ko Sénégalais yi ak dakaaruwaay joxoon maanaam mairie Dakar ak député à l' assemblée nationale mu ñu delloo ko ko ba pare nag wax dëgg yàlla def excuse publique dem ci assemblée nationale ne dañ koo tooñ ñu ngi koy ñu ngi koy jégg loolu rek la ñuy xaar ci moom mais amnistie ak grâce mooy ki nga xam ne que dañoo jàpp ne dafa tooñ ñu ko koy ñu koy accordé te loolu xaaruñu ko ci beneen bi nag mooy ay Karim Wade tamit taxawaay boobu la am mooy nañ revisiter procès am c'est-à-dire ñu ko taxawalaat parce que procès créé yi moom allah kulli lañ yëpp àdduna bi yëpp xam ne ne que jaarloon yoon parce que yow nuñ lay tuumalaa ba pare yow nga ngay justifier ne yow défaut xam loolu c'est inversion de la charge de preuves beneen bi mooy amoo sax kuréel pour pour dab-dabaatal atte bi maanaam appel amoo ko loolu moom Sénégal rek la am ci àdduna comme agsi nañ foofu ba def nañ ko li ñuy def li ñu koy def mooy li ma waxoon ci njëlbéen gi mooy dañ ko bëggoon a génn réew mi génn nañ ko mooy nañ revisité waat procès te ko ci revi bu ñu defalaatee procès yaakaar naa ne gàcce dina ci am loolu ñoom loolu la ñuy xaar ñoom ñi nga xam ne dañuy tudd ci dialogue bi wala di leen di leen latoo ci dialogue loolu la ñuy xaar buñ ci mënee buñ ci àndee dem ci alak euh, ala kuliyaale mënoon ci ànd ak ñoom bu fekkente ne pare wuñ ci dem ci nañ nañ seppi Khalifa Ababacar Sall ak Karim Wade ci seen i caaxaan caaxaan yooyu. d'accord réhabilitation boobu ngay wax ci ki nga xam ne mooy Khalifa Ababacar Sall par rapport yoroon te ci moom pour ñu delloo ko ko est-ce que jàpp nga ne loolu dina yomb ci contexte bi nga xamante ne ñu ngi ruumandaat ne euh, dañoo bëgg ngir Dakar ñu mun ko statut spécial euh, bu boobaa nag kii di maire ba. Euh, kenn dootu ko euh, fan maanaam askan wi dootuñu ko fal mais dañ koy nommé par décret euh, kaddu yooyu boo koy dégg est-ce que dina yombal li nga xamante moom mooy réhabilitation bi ngay sakku jiraan waaw gis nga boo tax ma ne gis nga ñi ñu jiite non seulement dañu tële amuñu xam-xam mais amuñu culture historique bu ñu amoon culture historique dinañ xam ne que Dakar une institution la boo xam ne ni moo sax jiitu nation bi moo sax jiitu état bu Sénégal maanaam Dakar muy nekk mairie Sénégal nekkagul Sénégal Sénégal moomagul boppam Déjà en 1895, déjà Dakar était capitale. 1902 également Dakar. Ça veut que Dakar, gëdd bi ko bi ko tubaab yi joxoon yi nga xam ne ñoo ñu colonisé woon wax dëgg yàlla tolloon na foo xam parce que xam nañ importance Ndakaaru ci Sénégal ak ci Afrique de l'Ouest ci ci Afrique également ci ci ci yaatal donc culture historique bi manqué moo tax ñu bëgg wëlbatiku ne Dakar dañ koy dañ koy dañ koy fal par décret su fekkente ne moom logique pour logique noonu lool mooy gis-gisam mais lu tax mu ne day fal par décret Euh, maire maire Thiès lu tax falul par décret maire Kaolack lu tax falul par décret maire Saint-Louis wala maire cinq cent cinquante commune yu Sénégal yëpp parce que fekkante ne nag dafa bëgg jël def ko Dakar statut spécial di ko signé par décret di tabb ki nga xam ne moo koy jiite na ko def pour Sénégal yëpp bu ci rombé également na jël euh, cent cinquante députés Sénégal yëpp mu nombi leen par décret na jël conseil euh, conseil des collectivités territoriales également ñi fa nekk membre yëpp mu nombi leen par décret na jël également ñi nga xam ne que ni ñooy ñoo ñoo ñoo ñoo jiite yeneen kuréel yi nga xam ne Sénégal yi leen di yi fal na leen soññi signé par décret bu ci rombé également boppam ci bopp moom ci boppam président de la république na fal boppam par par par par décret alors bu ñu jëmee foofu nag mooy que nekkatoon ci république ñu ngi nekk ci royauté ci une dynastie bi nga xam ne que nii moom moo koy jiite ak ak ak ak njabootam mais xam nga loolu lu koy lu koy waral mooy xam na ne que xolu Ndakaaru ak xolu Sénégal yi. nekkuñ nekkuñ nekku nekkul ci ñoom Sénégalais yi euh, voté luñ Macky Sall àndul luñ ak APR àndul ñu bokk benn bokk yaakaar te moom benn objectif la amoon depuis mu nekk euh, président ba léegi mooy nañ lay fexe ba teg loxo am ci Ndakaaru parce que Ndakaaru gëdd bu mu am capital de euh, de la République du Sénégal boobu ba léegi mi ngi koy daw di ko wuti mënu ko am def na ci moyens yëpp yëpp indi na fi Mimi Khalifa Sall dóor ko ba ruur ko ci suuf ba mu dem exilé wu dem Kaolack mu ni fa Amadou Ba ak moyens yëpp Khalifa saal dóor ko ba mu ba mu ruuru ci suuf loolu nag moyen yi mu ci def xam ne ne doyut bu indi woon jinne sax mu teg ko ci mairie Dakar Khalifa Sall dina leen dóor ba ñuy bëgg a dee donc mu ne kon amul solution solution bi moom politique indi naa ko antuwul xaalis indi naa ko antuwul indi naa sax peut-être ay kilifa diine wala ay kilifa aada pour ñu dugg ci xeex bi antuwul donc benn objectif la mën a am mooy fexe ba nasaxal institution yi naan damay signé euh, décret mairie de Dakar mais loolu yaakaar naa ne waa Dakar yi ñàkkuñu fayda ñàkk fayda bu toll nii dinañ seetaan. ñu jël municipalité euh, Ndakaaru di ko di ko di ko fal par décret loolu je pense que mi ngi suñu kanam nekk suñu ginnaaw lool loolu incha allah bu ko jaree lépp loo xam ne ne war na ci combat ak ci xeexu politique dinañ ko ko opposé ba li mu bëgg du antu incha allah. waaw ñu gis ni ko aussi ki nga xamante moom mooy euh, Elimane Diouri Ndiawane di Mouhamed Boun Abdallah Dionne euh, dafa génnoon fan yi yëkkati ay kaddu kaddu yooyu nag mooy nekk ci diggante Sénégal ak le président Macky Sall jeexagul day dem Euh, noo jàngatee kaddu yooyu. xam nga euh, Mouhamed Boun Abdallah Dionne c'est un c'est un automate c'est-à-dire machine bu ñuy machine bu ñu programme di ko wax loo lii muy wax di ko def loo lii mu def du moom moo ne fa woon moom moo double bouton. double bouton mooy que bu ko Macky lu ko Macky Sall sant mu exécuté ko tey jii bu génnaatee bu génnaatee ne ne ne sénégalais ak Macky Sall euh, jeexul fii ak 2035 ah peut-être ñoom benn benn projet bu ñu nekk la projet bi mooy que. Macky Sall euh, comme digg yi fi defoon mënut mënul amul wala kaddu yi mu yu mu yu mu joxe yëpp dellu na ci ginnaaw du ma du ma du du du am troisième mandat euh, dinaa ramener mandat bi cinq ans yooyu yëpp jàll na suñu ginnaaw te lépp la trahir yaakaar naa ne damaa damaa jàpp ne ñoom dañoo foog ne que dañoo bëggaat troisième mandat te soo xoolee sax seen doxalin ñoom seen biir képp ku am ambition ci seen biir parti ñu dàq la. wala ñu créer le problème wala ñu seet ay ay ay ay teem ci sa bopp euh, Sori Kaba dàq nañ ko Moustapha Diakhaté dàq nañ ko tey sax ñaa ngi dégg ñuy ñuy ñuy tam dëmm Amadou Ba ak Mimi Touré xam nga kon ñu ngi xàllal yoon kenn le chef le roi l'empereur mooy Macky Sall te Boun Abdallah Dionne mooy mooy Baye Fallam loolu la yàgg de wax mais ñoom nañ nañ am seen projet am sañ programme am seen ambition bu mu leen neex su leen xam nga Macky Sall kenn du ko nekk yow amoo droit bëgg troisième mandat mais peuple sénégalais ñoo ñoo ñoom ñoom ñu ngi fi am na lu fi amoon ci mille 2011 2012 ak Abdoulaye Wade lu ko raw moo nar am ci Macky Sall parce que mënuñu mënuñu quand même delluwaat ginnaaw ak dee fi amoon yëpp ñu raw ci lu ëpp ci daanaka lu toll ak ñaar fukki ñaar fukki ay xale ñu ñu rey leen ci lakk fi lu ci bëri ci ay ay ay ay kuréelu wala ay bâtiment yoo xam ne réew mi moo ko moom ak xaalis bu ci dem yëpp ñuy nangu nag Macky Sall wax dëgg yàlla sacrifice yëpp ak deret yi ñu tuur ak euh, tàkk bi ci amoon yëpp ñuy nangu di delluwaat ci situation 2012 je pense que loolu Sénégalais ñàkk ñu fayda ba di koy permettre mu ne sax xalaat xelam sax nekk ci troisième mandat ba di koy ba di koy doxal. Taxawu Sénégal ak Khalifa Babacar Sall. yow yaay responsable euh, ndaw yi euh, tey euh, est-ce que yéen a ngi parti socialiste bi léegi wala d'abord. waaw ñun mosuñu génn parti socialiste. ah d'accord nañu fii de. waaw mais mais dàq bi ku ne xam ne que dàq bi jaarul yoon ñun parti socialiste ñun ñun ñun ñoo ko ñun fondé wuñ ko le Bor moo ko fondé Abdou Diouf consolidé ko mais Khalifa Aboubacar Sall moo ko taxawal bi ñu perdee pouvoir bi 2000 Khalifa moo jël parti socialiste. def ko ci ci ci ci xol ak xelu xelu xolu Sénégal yi xolu jeunes yi xam nga néew na sax ñu gis ndaw di militer parti socialiste loolu mi nga commencé am deux mille deux de deux mille biñ dajee euh, hôtel Savana def kuréel mag a mag a mag xaj Aboubacar Sall Sénégal bi yëpp ba implanté ko ci ci cellules yi gën a tuuti mu implanté ko ba ci ñun ñi xam ne ay ndaw ñun ñun ñu ci dugg après deux bien après deux mille d'ailleurs mën nañ ci lim ay ndaw yu bëree bëri bëri ñooñu xamuñu Tanor xamuñu Abdou Diouf xamuñu Senghor mais peut-être projet ak ak projet de société bi parti socialiste tëraloon boobu lañ xam moo tax bu ñu gisee tey euh, lii lii ñu ngi koy ñaanal nag euh, le président Ousmane Tanor Dieng yàlla xaaree ko àjjana parce que mënul doon suñu nom suñu adversaire la woon ci benn moment mais wax dëgg yàlla amoon na dëgg taxawaay ci ci parti mais li ñu transformé woon parti euh, PS seeyal ko ci kaasu veeru APR ñun loolu lañu loolu lañu d'accord woon te fasal nañ ko. loolu musu musu mënuñu comprendre que Pape Sadio gëdd gi mu am histoire bi am jaar-jaar bi mu am ak Senghor coono bi mu ci am pour taxawal ko am 1948 ci jàmbarloom ak Lamine Gueye ñu dem ba ba ba ba le le Senghor doon bañ ñun ñenn ci Pape Sadio di ko nangu di ko rajo ci parti boo xam ne amagul fukki at ñun wax dëgg yàlla loolu moo ñu moo ñu révulsé woon loolu moo ñu jëmmaloo jaaxaloo te loolu moo taxoon ñu doon xeex ba jëmmal Pape Sadio couleur Pape Sadio te yàlla yàlla may nañu ci ñu dem xëy na yoruñu woon appareil bi idéologie parti bi ñu ngi ko doon doxal personnalité parti bi ñu ngi ko doon doxal couleur parti bi également ñu ngi ko doon ñu ngi ko doon. mais tey ak contexte bi nu nu mu demee nii parce que euh, même su fekkee ne yéen da wax ni ba léegi yéen socialiste euh, malgré que ñoom wax nañ ne dàq nañ leen euh, mais doo leen bokk ci instance su parti parti bi wala bu ñuy woote aussi ay ndaje ñoom bu ñu leen ci boole yéen doole bokk ci ci ci jotaay yooyu est-ce que tey euh, comme ni ko ñu bëri jàppee Khalifa Ababacar Sall warul jël euh, courage am à deux mains mu dem jëm a créer parti boppam bàyyi parti socialiste mu muy doxal ndax am na fa mel ni jaay bi nga xamante ne tey moom moo jiite parti socialiste bi dëgg la ñu wax nee na euh, diggante parti socialiste ak benn bopp yaakaar jeexagul day continuer bi en 2024. alors xalaatam même militants yi ñoom d'accord ci mais damay ñëwaat ci ci dàq bi moom alaakulli aar jaarul parce que. partisanisme dafa nekk ni te loolu lañ koy faral di wax te loolu moo am parti bi gën a organisé parti bi ay texte gën a encadré te buñ la naree dàq tamit dafa am foo nar a jaar ak ñoom ñu déglu la entendre la sanction yi soog a ñëw ba sanction dernier le dernier la dernière sanction wala sanction du dernier degré mooy exclusion te jaarul yoon loolu du ma si ñëwaat parce que wax dëgg yàlla dépassé nañ ko beneen bi mooy ndax Khalifa Ababacar Sall dafa war a am courage à deux benn Khalifa Ababacar Sall mënul génn parce que mënoo genn loo moom loo xam ne yaa ko tàppal jëmbal ko ba fexe ba parti bi yaatuwaat nooy wax loolu mënoo ko gerte bu yeesul boole na beneen bi mooy euh, boole bi mooy parce que direct directoire parti bi ñoom ñoo ko jiite woon ni ñu leen bàyyee nañ leen ko mais idéologie parti socialiste ak doxalinam ak taxawaayam ñun moom la ñuy réclamer ba léegi te on reste dans le parti beneen bi nag mooy parti socialiste la fa des des ñoom la ñuy benn kër la ak ak peut-être ñoom seen seen seen toppaate bi ñu topp. Euh, Macky Sall ak APR pour garder seen poste ak seen i stratégie seen seen i seen i privilège mais li li li li au delà du parti socialiste Khalifa Ababacar Sall dafa ambition Khalifa a une ambition nationale et ambition nationale boobu xam nañ ne que yam ci benn parti rek mënatul ko may moo tax ñun dañoo dajale ñu ëpp doole ci parti socialiste mooy militant bi ak idéologie bi ba pare wëlbatiku dem laaj Khalifa Ababacar Sall dem ubbeeku ci yenan yeneen yeneen kuréel. loo xam ne ni ay ay ay ay ay ay compagnon politique lañ ay allié politique ku ci mel ni ay ay yeneen parti yi ku ci mel ni Cheikh nga xam ne LD la bokk Soham El Wardini mi nga xam ne AFP la bokk ak Babacar Mbaye bi nga xam ne AFP la bokk ak ñeneen ñoo xam ni ay société civile lañ bokk ay parti indépendante lañ bokk bu loolu bu loolu bu loolu rombee ñu taxawal benn kuréel bu mag a mag a mag ñu tuddee ko taxawu Sénégal ak Khalifa Ababacar ay parti wala ay intérêt xeex ndax nga dajale ñi nga xam ne que ni moo nekk une masse critique des Sénégalais boo xam ne am nga xel mu rafet am nga culture bu rafet am nga peut-être xam-xam bu sell ñu wóoral ci suñu kuréel nga toog ñu waxtaan xool li nga xam ne moo gën Sénégal ñu tànn pare de defandoo loolu mooy ambition Khalifa Ababacar Sall mais di xeexandoo ci ay biir parti yi vraiment yaakaar naa ñun dépassé nañ ko ba ñun ñii man personnellement du benn yoon du ñaar yoon dem naa partagé ak plateforme yooyu ak ñi ñi ñu koy ñu koy ba bu ñu ci waree jàpp jàpp na ñu waree Euh, dóor dóor lu ci mais bu ci waree dox doxoo dox dox doxinu gëdd ak doxinu euh, fula dox nañ ko ci donc moom buñ même buñ ko gisul esprit bi la ñuy continuer di dox parce que xam nga Aboubacar Sall comme je l'ai dit tout à l'heure moom bu rombee moom am na ñëpp ñoo xam ne ku ci nekk da ngay incarné xam nga Aboubacar Sall te yaa ngi bay sa waay fu mu féete ba ci Barthélémy Dias mi nga xam ne kenn mi ngi def actualité lépp loo xam ne nii. mais lu mu wax ñoo ko bëggul wala ñenn ci Sénégal yi ñenn ci Sénégal yi ñoo ko bëggul comprendre ba pare bëgg a wëlbati waxam moom li mu wax lenn la mooy que benn benn benn bopp la c'est une république mais république également dafa am ñoo xam ne dañ leen cër mooy kilifa diine yi dañ leen jox cër que muy murid yi que muy tijaan que muy laayeen yi muy xaadir yi que muy kilifa waa jàngo bi ku ci nekk dafa am cër boo am ci république bi parce que Sénégal ni mu tëgg ni mu ni mu ni mu ni ba tax na bépp Sénégal boo xam ne am nga jafe-jafe te Sénégal boo gis ginnaaw boo bu ñu bokkee Sénégal am na foo bokk muy murid nga muy xaalis nga wala muy chrétien te saa yoo amee jafe-jafe nit ki bu amee jafe-jafe li muy bu seel bu gëstoo ñoom lay jël gis ma leen mbokkam mbokkam yooyu dinañ ko defal waaye ko wala dinañ dox doxu doxu fulla ba tooñ li ca tooñ ñu teggi ko li ci gën a euh, doy waar nag mooy buñ la tooñee. buñ la tooñee nan sa mbokk xam nga yeneen bés naan na ko dimbali si ñaari ci fan bu tooñee ak buñ ko tooñee bu tooñee nee ko da tooñ buñ ko tooñee nag fayal ko tooñam xam nga Guy Marius Sagna ñëpp xam ne dañ koo tooñ moom leen rek la doon xeex dund gi cher na courant bi cher na ndox bi cher na euh, Sénégal am na jafe-jafe mu dem dox doxu dox woo xam ne doxu càmmal am na marche parce que jurul yorul jaasi yorul paak yorul lenn lu mën a gaañ jaar fi nga war a fi nga xam ne war na fa jaar wax ak ki nga xam ne moom lañ dénk réew parce que dañ ko dénk réew moom ko ñu jàpp ñi mu àndaloon ñëpp ñu ba leen ñu libéré leen moom bàyyi ba kase xam nga loolu mooy tooñ mënu ko romb mu ne nag seen mbokk mi tooñ nañ ko ba fu tooñ mën a yem ba tooñaate ko yéen nag wax dëgg yàlla wa ñu ngi xaar ci yéen wax ci parce que mu ci yéen la bokk parce que ñeneen ñi bi ñu bi ñu fa seen i mbokk ñaanal lañ leen njëkk ba pare dox ci ay tànk jàmm ku ci bi nga xam ne bi nga xam ne xalif général des Mourides dem na ba ci biir kasa ba kon wëlbati ko di ko ñaanal njëkk Karim Wade bi nga amee jafe-jafe sëñ mu Sidi Mokhtar yàlla na ko yàlla yërëm te te te dalul ci ci ci dem na ñaanal njëkk euh, Macky Sall pour mu bàyyi ko Khalifa Aboubacar Sall xalif général des Tidianes sëñ Abdou Aziz Al Amin na lu tax ñun ñu a nangul xalif général ñenn ti ay àndandoo wala ci waa këram xalif général day tëjee ñaanaan jekk ci waa këram ba waa jàngu bi baax li bi nga xam ci jàngu bi bokk mënul ñaan waa jàngu bi tamit ñaanal njekk wala dox doxinu euh, en tout cas euh, wax ci wax ci problème bi nga xam ne dañoo dañoo tooñ bi Mari Sagna di ko di ko masawu loolu de loolu de la wax peut-être nag man naa politique lañ nag soo waxee bi say say kujje dinañ fexe ba déformer wax ji mais àlla kulli aali wax gis nga ci ngaañ wax nga ci lu lu ñagas wala parce nañ ko comprendre noonu te noonu la ko la ko la ko waxee te maa ngi koy réaffirmer encore bu rombee jàng bi ma bëgg damay ñaan euh, képp kilifa diina ak kilifa aada bi nga xam ne peut-être soo waxee ñun dinañu dégg na nga wax ak Macky Sall mbàyyi doomu jàmbur bi nga xam ne daf ko tooñ bàyyi ma nga dëkk ca Casamance boo gisee démb jooy yi muy jooy yi jooy xam ne que doomu manqué na ko moom Guy Marius Sagna manqué na euh, jabaram moom Guy Marius Sagna manqué na doomam bu ndaw bi nga xam ne fekk na fekk na mardi gras bi démb ay xale yëpp ku ci nekk di say say say wayjur solal la sol bu rafet ba génn wane sa sa bopp wane sa culture moom mi am manque affection paternelle ma loolu ci loo xam ne dañ la tooñ ñaaw na moo tax nag nañ ci wax suñ ci mënul wax nag ñun Sénégal yi ak jeunes yi surtout ñun lay ñaax problème bi du te ñoo tooñ bi Macky Sall nag jeune Sénégal lañ tooñ te nag wax yàlla te ki du la tooñ ba pare nga yóbbu ci di ko di ko ñaan njëkk comme ñoom déggul ñaan njëkk mais nañ jàmmaarloo moom war ko suñu suñu suñu doole te gëm naa ne ñoo ëpp doole Macky Sall jeune Sénégal yëpp bu ñu mancé woo Sénégal yëpp bu ñu mancé woo ala kulli li ñu bëgg dinañ ko am te li ñu bëgg mooy ñuy Macky Sall ñu génn ba euh, fekki njabootam. ak ah. euh, fekki Sénégal yi ñu doon xeexal. d' accord bi ren xam naa ne duñu cër lool ci waxtu daanaka jeex na ñu bàyyi rek nga daal di joxe sa message bu mujj. waaw Mamadou Fall vraiment maa ngi lay maa ngi lay remercier ci question yi am émission bi am na solo question yi neex na trop c'était des questions pertinentes vraiment di leen ñaanal également euh, yàlla na seen carrière laaw ba faaw ba ñu bokk ci journaliste yu mag ak ñu jiite ci réew mi may leen également ngeen am seen groupe de presse bu mag a mag bu yaatu te loolu laay ñaanal te di ko di ko yéene bu baax sama frère Moustapha dëgg yàlla jàmbaar la baax jàmbaar la bu baax a baax a a waaw ci côté boobu féete woon parce que ngi xamante. ci ci ci ci ci Sarsara euh, Daaro Moussi mu nekk koo xam ne ni ndaw la mais fu mu nekk day wane bëggam bëggam ci li ñuy li ñuy def ci bëgg Serigne Serigne Kos Asolo bëgg Serigne Kara Kos Asolo bëgg Wasilam Serigne Fallou Mbacké euh, te bu rombee loolu également lépp loo xam ne dañ ko doon def ci dëkk bi rek moom daf di doon wane xarañteem ci wàllu média tamit wax dëgg yàlla daf ci nekk loo xam ne domaine spécial la la woon. loo loo foo ko daan gisee daanaka yaa ngi ko mu yor rajo wala mu yor appareil wala mu yore caméra di di def liggéeyam. non comme tey na projet bu toll nii ñu dellu di ko ñaanal yàlla di ko ñaanal euh, wasilaam sëñ Fallu ak sëñ Goss Assalou Mbacké yàlla na ko ci defal barke. ba mu nekk groupe de presse bu mag a mag a mag. te incha allah lépp loo xam bëgg a àgg projet yàlla. maa ngi encore di fa di leen dellu di leen remercier bu baax merci beaucoup jërëjëf jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax a baax mbokk yi kon mu doonoon suñu invité seen deuxième numéro émission jotaayu politique mu ne woon euh, Birane Diop mi nga xamante ne moom moo jiite euh, ndaw yu fare ci xaw Sénégal euh, bu Khalifa Babacar Sall naka noonu itam ngeen àndoon ci présentation bi ak Mamadou Fall di jaajëfal baax a baax moom mooy Moustapha Seck mi nga xam ne moo fare woon ci wàllum caméra gi kon mbokk yi incha allah di daje ci alal bopp ñu dëgmalee doon la ci seen beneen numéro émission jotaayu politique jaa ngeen jëf